torlu à des moments historiques moment di seetaan de Patriote TV dal leen jàmm ci xibaar li gëna a ci xibaar yi gannaaw Juan Branco démb daal dafa mer ba futu di dal ci li nga xamante ni moo di Macky Sall ak li nga xamante ni moom moo di waa gouvernement bi ba tax na Juan Branco mais mële di avocat wu Ousmane Sonko gannaaw mu fi ñëwee moom ak procès Mame Mbaye Niang ba mujj dañ ko génnee li nga xamante ni moom moo di réew mi Juan Branco depuis boobu ba léegi la mere bu baax a baax baax ki nga xamante ne moo di Macky Sall ba tey di Juan Branco tey la gën a jàpp ki nga xamante ne moom moo di avocat bi di Ousmane Sonko ba tax nag nee na lépp loo képp koo xamante ne am nga ay preuve ak ay ay carte d'identité wala ñoo xamante ne ay victime lañ wala rey nañ leen wala blessé nañ leen si li nga xamante ne moom moo di manifestation bi rek na naa ne gis ngeen ko si post Facebook am bi nga xamante ne daal na ko daal di na Juan Branco nee on ne vous laissera jamais donc nag looloo nekk loo xamante nee na daal tànk ki nga xamante moo di Macky Sall bàyyiwul lu muy def Ousmane Sonko Juan Branco nee na moom du ko mus a bàyyi te lu si gën a garaaw mooy la Juan Branco nee dina yóbbu Macky Sall CPI Cour et